lii di poste premier ministre nag euh, boobu ba léegi ñu koy xaar ñu ngi jàpp nag cinq ya nga xamante ni juróom nag ci juróom ña nga xamante ni jàpp nañ ni daal war nañ mën a am toogaay bu rafet ci boobule poste kii di njiitum réew mi président Macky Sall nag daal di woon na ko xamle ay weer ca ginnaaw ne dina daal di delloosiwaat lii di poste premier ministre ginnaaw nag bu nga xamee ni daal di nañu weesu lii di élection législative yi naka noonu nag ñu daal di weesu li di scrutin bi nag moom moom njiitum réew mi nag mu daal di fay war a def euh, choix am ba nga xamante ne ni jàpp nañ ni du yàgg lool sax nag nit ñi daal di koy euh, découvrir wante itamit ñu jàpp ni rek post boobee ñuy tuddee sax ab post stratégique nga war fa daal di toog nag ci lu toll si ñaari at gi bi nga xamante ne nag moom njiitum réew mi dana fa jaaraale daal di jeexalaale lii di mandaam ba bu ñu sukkandikoo nag ci suñu ay xibaar yu ñu am jàpp nañ ni daal juróom a ngi nii yoo xamante ne nii war nañ am toogaay bu rafet ci boobu la poste ki ci njëkk nag mooy kii di Aminata Touré nag ma nga xamante ne ni moom moo jiite woon coalition benn Bokk Yaakaar bi ngir ñu am ndam nag ci élection législative yu ñu wees ki ci topp ñu jàpp ni nag kii di Aly Ngouille Ndiaye moom mën na defaat nag lii di retouram rek ca post boobu noonu ngir nag mu daal di cay euh, toogaat wante itamit euh, kii di Aminata ñaan nag di nekkoon fi sax ancienne directrice bu APIX moom nag taskatu xibaar yi ci diwaanu presse daal jàpp nañ ne profil bu baax la ngir euh, boobule postu premier ministre wante itamit duñu fàtte kii di Amadou Ba nga xamante ne ni moom moo gën a daal di ndaw rek ca boobule liste ginnaaw nag kii di Aminata Niane wante nag am na keneen ka nga xamante ni daal jàpp na ni moom mooy homme de confiance bu njiitum réew mi président Macky Sall te it moo faree sa juróomeeli taxawaay ba position ba moom daal moom mooy kii di Amadou Hott tey ñu tabboon kuy tabb ko fi nag ministre de l'économie du plan et de la coopération internationale